salaamu aleykum wa rahmatullahi salaamullahi wa rahmatuhu wa barakaatuhu wa iraanuhu aleyna wa aleykum wa ala jamii al muslimin sëriñ bi ñu ngi laa nuyu ni ngeen ko xamee kama la yaxfa aleykum ñu ngi laa delloo nuyoo di nuyu nag mbokk yépp jaarale ko ci yow di nuyu daayira bi di nuyu dawaayir yi fi daje yépp ak seen rocha di sësal nuyoo bi nag ci sunu kenn gu mag di xaaji abdul asis mi yemeeku yenam ci abdul asis wala xarwa wala xarwa an yaxasul fata aso walidi abdul asis bu mag bu amee yéen diisul sax tàyyiwul waaye sunnaal askan foor na rasul def na ñaari yëf yu muy wane ne deret ak askan am na solo fab na sirru nubuwat la xëjul ci abi bakrin li muy baax baax te rasulullahi sayidul mursalina du noonu waaye abubakar siddiq sayidul muminina kuy jullit Seydi Abubakar ay sa sang kuy yonantu rasul ay sa sang kuy yonantu la wax ngir noppal laajkat bi waxuñu kuy nit buñ ne kuy nit da ngay yéeg parce que di nga jàll ci kuy jullit ñu gën am ñu rot nga montewaat ne kuy borom xam-xam am ñu rot nga montewaat ne wëli yi am ñu rot nga montewaat ne lën am ñu rot nga yéeg ne mursalina am ñu root nga dem ci ulul asmi door a dem ci bateau marisal bi door dem ci rasululay ndax ne la dix-huit milliards neuf cent quatre-vingt-dix mille quatre cent quarante doom la yàlla bind biir yi yàqu sax ci la examen leen fop cent vingt-quatre mille ñu raw mu def leen ay supérieur segg supérieur yooyu nag dawloo leen trois cent treize sortie première mu segg trois cent treize yooyu داولو لين سانك راو سي دي اولي العصمي يمو جوخ مصطفى نكو فاصبر كما صبر اولي العصمي مو فاب نك سانك داوال لين مصطفى جن بريمير دي بريميري بريميري بريميري سيد الوجود وعلم الصفوف قصيدة كتبي بودي جمال أفي رسلي تواخل أفي القوم أفي الناس أك أفي العالمين دفا دم تقو يرنتبي بأن يون لا إتماك umra ñetti yoon la ko def waaye xaju farata benn yoon la ko def aj ci ñu mujjee santaane la ndax islam bi da doon ñëw au fur et à mesure bi mu amee huit ans te medinatul munawara weer bu ñuy wax diggu tabaski lañ koy indil farata aj mu ne diis na abi bikrin kaay nekk commissaire plénal nome ko ko Ababacar génn ba am cent trente kilomètres benn article wàcc bu waaw maa ko war a yëg mu ne comme am naa ngan te mënumaa dem te Abubakar li muy baax baax baax bokkul ci askan bi naa nommé Ali yi mu fab sirunu buuba ba jox ko Ali yi joxale ko document yi ak article bi nga xam ne moo wàcc ca suratul baraa troisième suuri Ababacar la gestu sen àll yu ràmbal dab ko mu ne jësub taxaw na lu xew mission buñ ma nomé ba noppi nomal nomé wat la taf tolle ci sama kaw lu xew dama def lëf mu ne ko yëguma ko rasool daf ne na dem ca Makka kumas ma baral akum ba soixante-dix aaya ma jàng ko ca kaaba ko kon demal ma wàññeeku mu ne ko bokk na lu dox بكون لني دخ يا يور أجي ما رام فلاس مصطفى صلى الله عليه وسلم يا جنا باخ سيد أبي بكر صباح خاي كم خمول نمودي سينا عمر بن الخطاب كن جاي خمنا أبا بكر كن دمام ما وقت لجرون ينتهي في نبي وقت عمر ترى لك أنك للي تخخمني أبا بكر كن دمام ينتهي بدفني بوي ولون عمر لني ينوي bankal sa baaraam bu yonente doon am sama gannaaw Omar lay doon janta bi fenk gul ba mu dalee fenk ba tey tiim góor gu gën Omar te du fenk tiim ko ba ilaa yomal xeex yonente bi ne mbedd mu Omar soobu seytaane daw ko ñeent fukki guddi nee na alxaqu maa Omar ay sukkaana dëgg nga Omar fu mu mën a nekk ننا ولو لا عمر نمنا قتلنا الهيب الإسلام بدل وانو قمر الإسلام دول الله انت تي عدنا تصيرو بيوي ننا بو الاخرة يا الذين بولي جلتي سمبي يفري تسين بيرنا وامتازو اليوم ايوه المجرمون ألم أهدي لكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم أدو مبين جنت وأنه بدوني هذا صراط مستقيم وهم لا لين وخون جن لان كتينك ولا ضلل منكم جبيلا كثيرا أفلم تكونوا تنقلون أمول تخواي هذه جهنم أعرف فول بي فول بي رسول الله ننا ما جنت لي يلي بند دمك وخنا بدنا جري جرو من برو أنا أول الناس خروجا يساب بؤسوا وخادمهم إذا وفدوا ومبصرهم إذا يئسوا وسافئهم إذا أبسوا بيدي يومئذ مفاتيح الجنة وباليد يسرى لواء الأمد وفي الوراء ألف من الملائكة كأنهم لولو المكنون ليالي yàlla bind maa ci gën الوقت جنوبي daa leen wax يوم ينفق في سور فصيق من في السماوات فالله ثم نفق في أخرى فإذا هم قيام ينظرون وسنس في العربي نور داود الكتاب نانا بني في ذلو نيني سين رو كونيك بج بجي يدن تيلي بس بينتي دينغا فاتلي كفو مسجار تتخلو نيمي نيجو نيبي دي ناغل من رسول الله ما يجي كنتل دور سمان دي جور أبا بكر نتل فقطو كوي جوك دوري جوك bu ñu jógee ba pole na ñu ne approché jegeñ si leen maa jëkk a dóor paa te ci Ababacar mu dóor paa ful bi topp ma mu wuy ji yàlla may sirwéyee nag ca boppam genn léeg-léeg ma bàyyi bopp bi ñëw ba ci genn ku tiit ma ne du pour yow booba jaanama xarmi bi sërërin kal xasri ka annahu jimaalaatun sufrun war mursalaati urfan falxaasifaati asfan والناصرات نصرا والفارقات فرقا فالملقيات ذكرا هورا او نصرا انما تؤدون لواقع فليس النجوم طمست وليس السماء فرجت وليس الجبال نصفت وليس الرسول اختت لاي يوم اجلت يوم الفصل وما ادراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكتبين الم نهلك الاولين ثم نبئهم الاخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكتبين الم نخلقكم من ماء ماء فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنيم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نشر الأرض كفاة أحيان وأمواتا وجعلنا فيها رواسي سامقات وسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين إن تلقوا إلى ما كنتم به تكذبون إن تلقوا إلى ذل ذل ضلال دهب لا دليل ولا يخن من لهب إنها ترمي بسبب كالقصر كأنه جمالات سفر ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم لا ينطقون ولا يسن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا اليوم فصل جمعنا معكم الأولين فإن كان لكم كيد فاكدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في سلال وعيون وفواكه مما يستوون كلوا واشربوا عنا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجد المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا خليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين من فبأي أديس بهده يؤمنون Aliyu continué ci mission سيدي ابي بكر كونتيني جرات النبوه دي رسول روف نكو تا دما بوغون ген خامي خليفه اك نايف الخليفه ونائب خامي ген دي نياري تي عرب كو ديغ ني موي خليفه كانوا أسكننا مام لا خليفة كوكو دندو تول كوكو خليفة كم رام بلاس نك تول تكو سوف نائب نك برام دفع تكيم با مام كان تواي مغي دندني بكنا ولا جيسا من نادي لسيتي مدف علي نائب فسر النبوة بجحكو جح أبلكو غراد بي مجانجي دكري بي itam ak dellu si gis nga sunu borom ku baax la kuy julit ku mu doon génn sa kër di tukki yàlla dina la abal garaatu nubuwa ba ba ngay dellu si sa kër loo ñaan mu nangu loo muslim mu cëll ko boo dellu see sa kër man nga am habitude bu tax mu faf ko bàyyeeg yow mbaa mu ñoriwaat morsoom xaar ba nga moo tax ñu bari tukki di bari seen tukki daa gis nit yàlla ku jóge fii réew ak réew te du fa doxi soxla ndax am réew boo fa musula mooy yàlla loo fa ñaan yàlla mu may na ko gisula aalimu bani israil ba toppandawam rek di def lu bon ba rey quatre-vingt ba rey juróom-ñett fukki nit ak juróom-ñeent xelam yedd ko tawaab ak rahim ba yàllay wax inna allaha xafurun rahim ak tawaab ñoo jegeñe mais bokkuñu prix bokkul càncaay ga nga defoon daaw ku la reyoon daaw doo ko mën a tuub ren am déet ndànku gi mu la ndànku nag ci laa ba nga fekk diwin ba sa xel xalaat na la nga defoon duni nga tàllal koy loxo looloo di tawaab looloo di rey im bi nga xamee ne taalal nga ko loxo it mu ne nangul naa la mooy tawaaf moom dina yéexe ko ko tooñ pour nga baalu ko boo ko baaloo it mu baal la waaja loola daal ko muy laaj ku daq jàng ki de réew mi ba ñu yebal ko ci génn sëriñ mu ñëw ne sëriñ bi dégg nga diw ci dëkk sànga mu ne waaw mu ne ko man la rey naa juróom-ñeent fukki bakken ak juróom-ñeent sama xel mépp nag dafa tiit dem ci yàlla ma doon laaj ku mën a jàng ndax mën naa tuub bu ma tuubee yàlla na nga koom déet ñu tegtal ma la moo tax a ñëw mu ne ko nga ne lan mu ne ko rey naa juróom-ñeent fukk ak juróom-ñeent mu ne ko benn bakken rek ko rey safara nga jëm boo tuubee di yàlla du ko nangu mu ne ko kon ma foofu la rey rek mu mat saam da daal na bopp ba tàbbit comme safara laa jëm rek yow ma complété la quatre vingt bi <laughs> dem këram am weer xel ma delluwaat ci yàlla mu fabuwaat di laaj ba ñu wax ko beneen aalim mu dem ci aalim ba posé ko question ne ko may diw mi nga daan dégg rey naa juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent doon ut fu ma tuube aalim sàngam déggoon nga ko mu ne ko xam naa ko mu ne ko déggu ne dañ ko rey mu ne waaw mu ne ko maa ko rey dama ko doon laaj ndax bu ma tuubee yàlla nangu ko déet ndax rey naa juróom-ñeent fukki bakkan ak juróom-ñeent mu ne ma boo tuubee safara nga jëm ma faf ko rey léegi nag sama xel yeddaat na ma maa ngi ci sant yow dama lay laaj ndax bu ma tuubee yàlla nangu ko déet sëriñ bi ne ko waaw waaw booy tuub muy nangu waa jaa ngi yor jaas ji bi wax loolu sëriñ boobu mën naa am dafa ragal de mais mën naa am dafa dàq jàng sëriñ bu njëkk bi mën naa am ku rëy juróom-ñeent fukk doon laaj ñu ne ko boo tuubee du nangu mu rëy téeméer ba ñëw di la laaj te mu ngi yor jaasi ci mën naa am da nga nangul ko ngir ragal dee mais fekkit dafa dàq jàng ku jëkk ki daf ko ne xam nga na ngay def da génn réew mi dem ci réew moom musula moye yàlla réew moom musula moye yàlla boo fa taxawee tuub yàlla nangul la loo fa ñaan yàlla mu may la ko moo gémmiñ koo musula mooy yàlla yem moo tax ñuy wax bul ma fàtte ci ñaan bul ma fàtte ci ñaan kenn ku ne gémmiñ koo musula mooy yàlla bu luñ la ca ñaanal mu nangu te loo muus muus doo abba gémmiñ yi gémmiñi jàmbur xanaa mooy ci yàlla xanaa abba gémmiñi jàmbur mooy ci yàlla gémmiñ koo musula mooy nag boo ca ñaanalee yàlla nangul ko mu ne ko demal ci réew moo xam ne musula fa mooy yàlla nga tuub fa yàlla dina ko nangu waa ja xam nga fu mu dëkkoon masalan mu ne kon day ma fa bu a seet dëkk bu ma mosula def njaaxu préparé yebal xel mi ne Rufisque ne ah foofu du baax xanaa kees yé kees day keroog bañ fay këfin këfinoon naa kon ma dem jaareem mu ne jaareem baaxul xale bi dafa bari woon xaalis fa rafet am moyen de transport ak lu mu joxe borom wërsëg yi nañ yokk seen loxo ci tiyaabo ndax bàkkaar yomba na ko borom wërsëg bàkkaar yomba na ko lu mu santaane ñu def ko buntu bu mu fëgg ñu ubbi ko kon maa ngi sant borom wërsëg yi ñu doole talal seen loxo ci wiiw ñi bariwul wërsëg nag maa ngi leen di dénku ñu moytu bu baax a baax a baax a baax a baax bàkkaar ndax bareegu ñu yiw ku amul dépense bu mat doo am loo saraxe <laughs> ñi bari xaalis lool nañu moytu bari nañu càncaay nañu moy nañ doolee tàllal sen loxo nañ doolee tàllal sen loxo borom wërsëg lu mu santaane ñu def ko ku mu fëgg ñu wuyu ko yàlla bind nonu jam yi nit mom jam yi ku bari koppar la donte du ci mos nonu ku néew la la donte lu mu am ñu bokk ko yit ma kuntum tastatiruna an yastada alaykum samakum wala abzarukum ولا جلودكم ولكن سننتم إن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون وذلك سنكم الذي سننتم بربكم عذراكم فأصبحتم من الخاسرين تين طيب، فإن يصبروا فنار مصر لهم وإن يستحسبوا فما هم من المحتاطين آه، سرين بي واخنا كون ko nee na ñu bàyyi suñu xel suñu تكات تكات te kat te kat te kat gis nga lee neex yàlla tey ci ëmb bu moo sol lamp yi leer looloo ko neex tey mais du continuer dina ma sa xëy fuuk la mel ni ku la dikkale nelax yëg nga ne guux boo guux boo war a naan desatul ci àddina benn tibb booy wan naa su amatul waxuma ci dëkk bi àddina gépp te it mayetuma la benn paa nga yëkkati ko jaabante nga ba tey xefe gën a oyofaay bu mu daanooti bu mu jógati nga ne jàkk di xool benn barab weñ ñu xonq yi dina dal buñ ko dàqul dinaaw kalaay sa balaxate taraqiya وقيل من روق وسنان الفروق والتفت ساق بفاق الى ربك يوم يشن المواقع فلا صدق ولا صلى ما غي قال سبا دور بياك فيك دوتوك سلام قران بو بيسا بس لك كنين اكو يسل كبر فور بي خامل لك نواي تابي دوتو تشدو كسل خبي يرق اك يو يب نك فف سير روغي مان كوي تيري نكو روتيت نغان باج مون نك تي ما генيل كيرغي يانون ياكو موم تي ما генيل كو генيكو دوتول دلوسي da nga daan tiitaru ne fi la juddoo ci dëkk bi tey ma genné la dëkk bi xam nga fuma jëm ak yow fa ñuy sànni midi dina fexe nak ñi lay gunge ñëpp ma pikir leen ba ñu néeg la sa lax suuf ñibbi wacce la fa ma fekk la qad yahlamu la ma antum alayhi qad taqiq la qad yahlamu la ma antum alayhi wa yahlamu la mu asab ko yow ma yurjauna wa yaalamu la yow ma yurjauna ilayhi yàlla ne ma ngi leen di signaler ne sagnu ma lu tolni tarfa tay ay ni ci li ngeen nekki parce que gunge naa leen ci pénc ma ngay ñibbi si ma ànd yow nuyu naa la jamonoy mbégte seet si naa la nga feebar seet naa la jamono bi nga banqué seet naa la jamono bi nga amee aleel seet naa bi ma santaane seet naa bi ma bàyyee waaye maa ngi laa signalé ne dara umpuma xad yahlamu laahu ma antum alayhi wa yawma turjoona ilayhi njàccaar mu toll ni yàlla ku am moom affaire te moom ku mën a noppi la du wax dara daa gis ku jënd jiwu ruuj ba mu set toj ko tànn jiwu wa te asamaan a ngi séddu ci kawam du ko wax dara du ko wax yow c'est pas la peine ndax ren nii danaan pase rek <laughs> xam nga mënoon na laa wax yow daal soo yeboo kii daa gis ku jënd xaram tabaski di raay rek di may pepp te tabaski jaan lay fekk bar sàq du la wax sax matu ko day bàyyi rek ab assis yéen nekku ci ab assis mu ndaw iqtidaan bil mustafa قل جاء الحق وزاق الباطل إن الباطل كان عوقا borom bayaan yi ne nañu kooku tafsil la mais tafsil du am ci wax yàlla tafsil ci xeetu litnaap la litnaap fukk la juróom benn tafsil ci la si këru xaas baax da am ci la sa këru am baax da xaas ci la takraaru lif si ci la siyaadatul arfi ci la tafsil ci la iqaam ci la euh, ñu ne nag tafsil moo di masalan ma wax ko ci wolof euh, moo di wax bu pare ba noppi nga teg ca leneen loo xam ne bu ñëwul woon nit ñu dégg wax ja mën koo jariñoo loola ca teg nag arab dañ ko tuddee geen mënu la tere fas dem mais dina ko yokk daraja ñu ne nag wax yàlla amul loolu ndax yàlla tëw borom ñu laaj jum ji mujj ji kon lu mu fi wut jaal xàqu wasaaqal baatiru doyul waaw inal baatira kaana soyo xol lu mu ci gaa yi jàng bayaan ma ne jaal xàqu wasaaqal baatilu wax bi jeex na dëgg ñëw na motañe fen ni fi nekkoon dëggaat ko ba mu sooy الإسلام نيونا دقات الكفر وخبي جيغنا إن الباطل كان سعقب bu ñu dabaatal nag moom la borom bayaan yi ne tasyiil la bokkul ci wax ji dañ ko génnal ñu ne du tasyiil ndax am na ñaari ñaari ñu ci ne إن الباطل كان سعقا jooju ñu ci teg توكيد مد إن la بالحق وتوديد السم بالباطل بنو والله موصول آية جوجو يالا النبي دنا تكابغا أمنا 360 استاتي kaaba gi dañ fa defoon trois cent soixante stades stades yi dañuy ëppante woon doole par néeg la nag par gañu ndey amoon na benn faaleen am benn njaayeen am benn waddeen am benn sekkeen am benn ma ma bañ a tooñ ñi caaxo am benn ma bañ a tooñ famille bu nekk ci seen kantalaaye doole la seen stades yi nekk ñii përëm la ñu ñii weñ gu ñuul ñii ciment ñii wurus ñii xaalis ñu wërale ko nag ca kaaba ga di ko dàmbalee kaaba gi bu ñu amee soxla mais kenn ku ne da ngay ronu sa istati yàlla nag ne ko dégaseel ma moo tax bi ne bi neen allahu ahad dañ nekk da ngay font Moustapha buur bi mën naa doon kenn bu doonee bu doonee kenn musiba dal na ñun am nañu trois cent soixante buur te suñuy aaja fajoogul kon bu ko kenn yore xanaa musiba dal na yàlla ne ko nag demal dégaase leen ñu rot mu ne ko na ma koy defe ama marto mu ne ko soxlawul marto jox ko benn yar boo xam ne mu ngi oyofe ne yari nganja ne ko jàngal aay bi ma doon jàng léegi ndànk boo ko jàngee ndànk caw ko benn xërëm dina daanu na bi ñëw ci kaaba gi naan jaal xaqu wa zahaqa al batilu in al batila kaana al awqa na la ko faj nga mel ni sondeel bu ñu tiimale safara mu topp stati yi ci ëppoon doole stati féete kaw nabi yuutu ko jot ko aliyin ñëw ne ko kay ma tóngóob la nga nga pour nga jot ko na ree ne ko antanoma nabi lépp la ëppale nit lépp nag mën naa la wax poids Moustapha na mu day ndéem mën ngaa teewlu oto yi ñuy dippi ci sëwa yi di wax deux sëwa trois chevaux quatre benn naaru góor bu nekk fanweeri doole yi waxambaane nit la yor benn naaru góor fanweeri doole yi waxambaane la yor bëggal sa baaraam jinne joo gis fanweeri doole yi naari góor la yor benn jinne benn waxambaane wu doole yi naari góor la sa baaraam benn waliyu bu nekk fanweeri doole yi jinne la yor bëggal sa baaraam benn yonent bu nekk fanweeri doole yi waliyu la yor Moustapha yor dooley fanweeri yónnent asraf al xalq mu ne Aliou antunoomo xam nga nanuy def danaa fab siru nubuwa gi jox la tongóob yow nga àjjil ma ko mu rocc siru nubuwa gi jox ko sidina Ali na ne ko safeet ba mu tollu xiram ba Aliou jàng aay bi jaaraaqu wasaaqal baatilu inal baatila kaana rauqa naka caw mu daanu ne bi cëppeel ko waaye aliou bi mu cëppeeloo dana billahi lazi la ilaha illa huwa bu Moustapha yéexoo ne wàcce loxoom ma laal bi diw asamaan yi juróom ngir doole sala alayhi laaw xayitul munaa huwa xayitul munaa huwa ووقعت النار ووضعنا عنك ووقعت النار عنك الذي انقض ظهرك يا النار يوم ورفعنا لك ذكرك الله أكبر يا كيف مصدركم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا وما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي له من قرتين جزاء بما كانوا يعملون من أفمن كان مؤمنا غير كمن كان فاسقا آه لا يستوون ويل يا يا آه. ما في الخلق مثل محمد أبدا my God. هو خاية المنى هو خاية المنى هو خاية المنى هو خاية المنى ومنتهى الأمل هو خاية المنى ومنتهى الأمل يتم هو خاية المنى وما تخلي الله نور السماوات والأرض مثل نوري كمسكاة فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري يخذ مثية مباركة سيتونة لا فرقية لسا تنكو قد قد ولا خربية لسا نبسطة سطة يكاد سيتا ينزئ ولو لم تمسسه kon naarun nuurun ala nuuri waaw dafa ni loxo yi du gën gu ndaw du du nag ma du man gu ndaw dégg borom ibnu maayib bi am sa istifham gi fimu mu ko dugal waxul afil aalamiina waxul afil naasi wax bi day gudd waxul sax afil muslimiina déedéet waxul afil mursaliina waxul afil ulil asmi نبي وقل أفي الأولياء وقل أفي العلماء وقل أفي العارفين أي لا كبي لا جل أفي الأخطاب وقل أفي الخواص سنجي نيونيو سن سنجا سن سنجا ca la mu ne maa ngi laaj benn laaj bu kenn am kersi